Sénégal dina disputer demi-finale afrobasket jigéen ñi bay amee jamono ji ci réewum Cameroun gaynde yu jigéen yi doon dajeel Mozambique ñoo mujjee daan ci score bu 74 46 muy match boo xam ne ñeenti carton yëpp gaynde yu jigéen yi ñoo ko gañee Mam Maris yi wane ci boppam bu baax am 17 points ki nga xam ne moo di Umu Xayri Sarr naka noonu nit Bintu Jéemee ñu doon ñetti doyenu équipe bi. daal di wane seen bopp bu baax a baax ginnaaw ba Léna Niang ak ki nga xam ne moom mooy Yacine Diop wane woon seen bopp ci match yi weesu match bu tey bii nii demeewut noonu ba tax ñu porter équipe bi premier carton bi Sénégal daal di gagné ci score bu 23 ñaareeli carton bi ñu creuser écart bi dax daal di mëne vingt deux ci mi-temps bi. ñetteelu carton bi gaynde yi daal di fippu bu baax a baax gën a yokk seen loxo gën a yokk li nga xam ne moom mooy score bi ba mëne 61 38 carton bu njëkk bu mujj bi ki nga xam ne moom moo di entraîneur bi dal di jël titulaire yi dem noppal leen teg leen ci banc bi jël jeune joueur yi nga xam ne bii mooy seen première afrobasket bàyyi leen ñu jeexal match bi ba Sénégal mujjee gagné ci score ba 74 46. Sénégal war a daje ak ki nga xam ne moom moo yor raaya gi te éliminé ko dóor ko final ci ñaari match yi ñaari final yi weesu yépp ci afro basket bi mu di Nigéria ñi nga xam ne ñoom ñooy favori ci compétition bile. mu nar a doon match bu metti boo xam ne gaynde yi faw ñu daal di gën ci wane ak xarañteef waaye it wàññi foot yu bari yi nga xam ne def nañ ko tey ci match bi ngir mën a daal di gagné équipe bu Nigéria ngir mën a qualifier ci final afrobasket bi.